ji la benn fan kilifa yi nag eh, di ko màggal di ci daje ngir màggal terug weer wi ak waajal ci it xeexu mag bi nga xam ne moo ne ci kanam te jullit yëpp bokk ko eh, te ni ko sëriñ Fallou Syll waxee murid yi am ci seen cëru bopp muy guddik kazu rajab di ñaar fukkeelu guddi ak ñaar juróom-ñaar ci weer wi kon ñu fas yéene barkeeloo ay kàddu rek ci ndigalul kilifa yi ginnaaw bu ndokkeele jullit yëpp di jiital ci ndokkeel gi siyaar bi ak nuyoo bi ndokkeel gi rek Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa ak murid ñu jiital ci moom kon di ko jox siyaar ndokkeel ci bis bi bi ci tertal weer wi di ko jox it mboolem njabootu sëñ Tuubaa gépp waaye di ci ràññee nag sëñ abu Baraka mu nekk ci bopp njabootu Cheikh Mouhamed Fadel mi nga xam ne fii ci ëttam la ñu nekk tey jii di fi waxtaane ak a nafaraat ngëneelul weer wi ngir xas ji nga xam ne Cheikh Mouhamed Fadel am na ko ci e, ci biir li nga xam ne ñëpp julli yëpp ñoo ko bokk kon ñu ngi koy ndokkeel baax moom Cheikh Abou Baraka di ndokkeel mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Fadel gépp kilifa yi nga xam ne ñoo ko fi teewal fii ci jotaay bi eh, sëñ Cheikh Oumy sëñ Mouhamadou Xabaan sëñ Ahmad ak kilifa ci des yëpp rek ñu ngi fab nuyoo beeg ndokkeel gi di seen loxo mu jàlle ko ci kilifa yi ca kaw Cheikh Mouhamadou Bachir sëñ Abdou Fatah ak sëñ Moutlak kilifa ci yépp rek ñu ñëpp la ñuy ndokkeel leen ziar ci teeru teel weer di ndokkeel ak ziar mboolem kilifa diine yëpp rek ci lislaam rawatina kilifa yi nga xam ne ñoo askanu ci yoonu Serigne Touba. ni ko Serigne lu waxee weer wi nga xam ne moo teru tey di weeru rajab di ndey koor dafa bokk ci weer yi gën a màgg te gën a tedd ci weer yi ne ci at mi alxuraan day wax ne limu weer yi fa yàlla fukki weer ak ñaar la mooy tolloog at mu ne nag ci biir fukki weeru ñaar yooyu am na ci ñeenti weer yu ñu wormaal yu ñu màggal lool jox leen dayo ak ak wàccuwaay bu ñu jagoo ñeenti weer yooyee rajab ci la bokk yeneen ñetti weer yi ci dañoo sësaloo rajab moom dafa beru moo tax ñu koy wax rajab alfard dafa wéet beru ndax weer wi ko jiitu ak wi ci topp bokkuñ ci ñeenti weer yooyu ñu lim yeneen ñetti weer yi ci des mooy zul qaada ak zul xijja ak muharram mooy diggiwu tabaski ak weeru tabaski ak weeru tamxarit bu àndeek weeru dayu wi yi di rajab mooy ñeenti weer yi gën a tedd yi nga xam ne moom la ñu tuddee weer yi ñu wormaal yi ñu màggal lool jox leen dayu bu kawe ba tax di tere eh, ku ci yëkkati ngànnaay di ci jaamaarloog koo koy ko noonool mm-hmm. ci lislaam sax loolu dañ ko ciy tere Euh, kon loolu day wane ne kon weer wi wenn la ci biir ñeenti weer yooyu kon weer wu màgg la euh, woo xam ne xew-xew yu mag am na ci ci lislaam yu firndeel màggaayu weer wi gën a koo jox dayo ak daraja muy rañaan mi ci amoon ci guddik ñaar fukkeel ak juróom ñaar te dañ ñëw ci kanam kon weer wi di weeru ndeyu koor weeru màgg la wu ñu wormaal la wu am barke la woo xam ne dañuy bëgg bu teroo jullit bi yëg ne weeru màgg teru na mu jagleel ko ab cër bu mu koy jox ngir eh, wormaale ko ko moo tax ñu bëgg bu weer moo tax sax weer wi ci boppam weer wépp ku ko man sopp nañu nga màng ko woor ko woor weer wépp bañ cee dog benn fan loolu lu ñu sopp la koo xam ne mënut a woor weer yëpp itam sopp nañ mu bari lu mu ciy woor lu ci waaye man rek ci koor mu di ko def ci biir weer wi ngir màggale ko weer ak wormaale ko ko sopp nañ loolu it ku ci faral di tudd yàlla di ko ci màggal ak di ci julli bi sallallahu alayhi wa lu bari ak lépp lu waay man ci jëf jëfi yiw ji jariñ doomu aadama ci xeeti ndimbal ak jokk bokk ak defar ak yéwénal bëgg nañ jullit bi lu mu ci mën kem kàttanam mu di ko def ci weer wi ngir wormaale ko weer wi ak màggale ko ko euh, loolu moo waral kilifa yi bi weer wi teroo rek ñi nga xam ne njabootu Cheikh Mouhamed Fadel euh, ñoom daal di tàmbali bëgg a firndeel ne nañ ne weer wi na mhm. ñu bëgg amal ab jataay bu ñu koy teeroo euh, ngir waajale ko mag guddik ñaar fukk ñaar yi nga xam ne jullit yëpp ko bokk waaye itam am euh, murid yi sëriñ bi am ci cëru boppam ndax kenn ci njabootam yi gën a ràññiku ci la feeñoon muy Cheikh Mouhamadou Fadil radiallahu taala anhuma moo tax kilifa kon ama jotaay bii ngir euh, nafarante nafar ak yéen ak fàttalante ci ngëneelul weer wi ak màggam ak xeexoo bi nga xam ne moo ne ci suñu kanam kon niñ ko waxee weer wi weer wu màgg la woo xam ne bu ñëwee kon jullit bi war na cee farlu ci ay jëf yu baax ci xeeti koor ak ki joxe ndimbal ak tudd yàlla ak jokkuk bokk ak yu demee noonu waaye war na cee farlu itam ci moytu lépp loo xam ne e, jiyoog ndigal la mooy ak mooy la wala ak tooñ la moytu ko ci bu baax ndax wépp weer wu ñu warmaal wala bis bu ñu warmaal nañuy bëggee ku ko màggal ci jëf ju baax la ñuy bëggee ku ko warmaale moytu ca lépp lu ñuy tere li ko war a moytoo sax ci weer wu mën a doon ak jamono ju mën a doon kon loolu ñu bàyyi ci xel baax yëg ne weer wi teru na kon ñu fas yéene koo jox kem kàttan li mu yeyoo ci warmaa la ku ko màggal wax naa ne kon bëgg nañ ku ko woor ku ko man woor ko lépp ba mu jeex ku ko mën loo ci man nga woor ko su ko defee nag am na bis bu ne ci kanam muy gudd bisub ñaar fukk ak juróom-ñaar guddi ga ko jiitu di ñu koy woowee kazu rajab xew-xew bu mag xewoon ci ci lislaam mooy rañaanum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam akuk yéegam muy al israa wal miraaj eh, di xew-xew boo xam ne dafa am tolluwaay bu mu fekkoon lislaam tollu fa fekkoon itam ay jafe-jafe yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa daf ko doon dund eh, ci kaw suuf sunu boroom nag rañaane ko rañaan buñ ko waxee mooy tukkib guddi bàyyi ba guddi nga jóg tukki jóge ci barab dem ci barab loolu ñu tuddee rañaan yonent bi di cee tukki woon ci waxtu guddi ndax ci guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar ci rajab ci atum ñetti at lu jiitu gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi jóge Màkk dem Madina ci at mañ doon wooye amul xusni mooy atum njàqare atum naqar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jullit Eh, ci guddi googee la ñu rañaane woon bi sallallahu alayhi wasallam maanaam la la ko boroo la boroomam yónnee woon ci moom ndaw muy Seydina Jibril alayhi salaam mu yor waruwaay wu ñu tuddee alburaaq jóge ca fa gën a kawe ci asamaan wàcc ci suuf dem Makka fekk yonent bi sallallahu tëdd ca biir jàkka ja al masjidul haram mu yee ko fekk muy muy muy muy dallu mu yee ko ba mu yeewu mu mu digal ko mu wàcc jàpp mu yëgal ne ko boroomam moo ko moo koy woo mu ànd ak moom ci guddi gi yéeg ci loolu ñu tuddee alburaaq rañaan maanaam tukki jóge makka dem dëkk bi ñuy wax alquds mooy jérusalem euh, ci guddi gi bañ demee foofu ñu wàcc euh, am lu fa xew yonent bi sallallahu alayhi wasallam tase faak yonent ya ko jiitu woon mu jiite leen julli ñu jóge fa yéeg nag dem ba yegg fa gën a kawe yonent bi saa sam diyaali fa boroomam mu jox ko fa julli juróom kon tukki boobu mu tukki woon ci guddi gi jóge Makka dem Alquds moo tax ñu koy tuddee rañaan waaye ba mu àggee foofu dafa jógee yéeg nag jóge ci kaw suuf yéeg dem asamaan mooy tax it rañaan bi dafa lëkkaloog ak yéeg moo tax ñu al isra wal mi'raj loolu xew-xew bu rëy rëy la bu màgg a màgg màgg ab jaamu yàlla bu ne ci kaw suuf boo xam ne yàlla ci jëmmam moo yabal ndaw lu jóge ci asamaan mu ñëw jël si ko ci kaw suuf yéegal ko ba weesu juróom-ñaari asamaan ba weesu fa Seydina Jibril mën a yem ci kawe mooy fa ñu wax Sidratul Muntaha fa nga xam ne fa la ma waa nekk aljana ja nga xam ne fa la suñu maam nekkoon mook awa ba yàlla wàcceel ci kaw suuf foofee la Seydina Jibril dëkk foofaay dëkkam fa la fa la féete fa la mooy wàccuwaayam yonent bi dem ba foofa Seydina Jibril yam foofu moom mu yéeg moom ba àgg fu gën a kawe wéet fa ak boroomam loolu xew-xew bu rëy rëy rëy rëy la boo xam ne eh, dañoo miin dégg gi nii rek waaye lu yéeme la loolu kon bu amee ci weer weeroo weeru màgg la mu mel ne xew-xew boobu nag bi muy am dafa fekkoon lislaam toll ci ay jafe-jafe yonent bi sallallahu alayhi ci ay jafe ndax xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ga mu gën a àdduna màggee fa ba yàlla yónni ko fa yónni ko dafa nekkoon dëkk boo xam ne lislaam a ko sancoon ndax Seydina Ibrahim alayhi salaam moo ko sancoon moo fa yóbbu woon njabootam doomam ji ñoo Ismaayil Seydina Ismaayil ci ndigalul sunu boroom Euh, ba yàlla digal ko fa mu tabax fa kaaba moom moog doomam sidna Ismaayil euh, kon li dëkkub lislaam la woon boo xam ne sama ko sanc ñu fay wéetal yàlla seydina ibrahim bàyyi fa doomam joojee ñu tabax fa kaaba muy néeg bi ñu njëkk a tabax ci kaw suuf ngir jaamu fi yàlla inna awala baytin wudia linnaasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin mu ayatum bayinatum maqaamu ibrahim wa man daxalahu kaana amina ba aaya ba jaax euh, waaye jamono di dox di dox di dox ba ña nekkoon ca dëkk boobee fàtte la sa la la la taxoon ñu sos dëkk ba muy lislaam ak wéetal yàlla mujj dem bay jaamu ay xiram xamatuñu sax luy yàlla ak nuñ koy nuñ koy jàppee ak nuñ koy jaamoo wàcc yoonoo bu yàgg yàgg réer ba wéetal yàlla ga xewoon ñu bàyyi ko di bokkaaleek yàlla jàppe yàlla ay jëmmi jëmm yu baree bari yu ñuy yu ñuy yu ñuy misaal yu ñuy jëmmal yu ñuy jëmmal ci ay ay ay ay loo xam ne ay loxo doomu aadama koy defar euh, ba loola sëxiñ ci ñoom yàgg ca yàgg yàgg ba xamatuñu yàlla dekk ci boppam gëmatuñu ko gëmuñu ne ku ku ku faatu des na la ay ajana ak sawara xamuñu ko euh, xamatuñu dara ci war may euh, barab bañ nekkoon yàlla nag yabal ku bokk ci ñoom muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi mu ñëw war leen a génne ci réer googu ñu nekkoon bokkaale yàlla googu ak jaamum xiram ak mooy gaa tooñante gu ëpp gu daan def ngir yóbbu leen ci wéetal yàlla ak jaamu ko moom dong ak rafetal aw dëkkiin eh, ak jaxasoo seeni jikko ak seeni teggiin ak maandute ak yu mel noonu mu yebal ku bokk ñoom ku leen di woo jëmee leen ci loolu muy Seydina Muhammad di ci woo jullit àdduna waa xeetu doomu aadama yëpp itam nag ñu wëlbatiku ñoom ngir seenu réer wëlbatiku def ko noonu di ko xeex di gàllankoor wooteem boobu nga xam ne moom la yëkkati woon ba ba àgg ci bëgg bëgg ko fee nga xam gàllankoor bu ne def nañ ko ngir mu bañ mu bañ a jot li booteem Euh, ci ay lor yu ñu koy def mook ña ko njëkkoon a gëm ba ñu demee ba lor yi bari lool te teewut mu sax ci woote ba ñu di ko xiirtal ci ay ay neexal yu ñu koy neexal naan ko nañ lay fal buur ak nañu la dajaleel alal suñuy alal jox la nga ëpp ñu alal ak lu ne ñu def ko ngir bëgg mu bàyyi woote bi moom mu wane ne jant bii sax bu ñu ko tegoon ci loxo ndeyjooram teg weer yi ci loxo càmmoñam maanaam bu ñu ko yanoon la gën a diis rek ngir bëgg mu bàyyi woote bi du ko woote du ko bàyyi waa ñu nag xalaat nekkoon kii kat ku yabu sàkk ci moom pexe waaye mënuñu woon a yegg si ci jëmmam nag ndax amoon na baayam bu ndaw muy Abu Talib boo xam ne sax nekkutoon ab jullit eh, gëmutoon duggutoon ci lislaam moo yéefaree ñoo bokkoon yi taxawaay waaye ngiru mbokk ndax Seydina Muhammad doomi doomi mbokkam la mbokk googu taxoon na moom mu di ko aar te it moom fi ci moom la nekkoon bi maamam Abdul Muttalib génne àdduna moom moo ko yoroon ci këram ba mu doon mag ba tàmbalee liggéey ba am ba samp kër muy doomam daal mu yamale ko ki doomam kon du bàyyi ñu koy fekk ci biir këram di ko lor moo taxoon ragale woon nañ ko ko ruse ko ko ba ba mënuñu woon yegg ci jëmmam ñu dem nag ba yàlla dogal Abu Taalib moomu daal di génn àdduna euh, mu amoon ni soxna su baax mooy soxna Xadija mooy ki nga xam ne moo ko njëkk gëm jàppale woon ko it ci woote bi ci xel ak dalal ko ak defal kook di ko jox alalam ak lépp yàlla dogal kooku itam dal di génn àdduna ci menn at mi nga xam ne kon ci amatul daal koo xam ne ci màkka moom lañ koy ruse ci doomu aadama ñu ne waaw léegi kon mën nañoo jóg nag jaar jaar ci jëmmam sàkk tàmbali nag gën a taral lor yi ñu koy lor ba di def pexe ngir sàkkal ko pexe ci loolu la génne màkka euh, dem taif dëkk la woon boo xam ne amoon na fay nijaay ak i bokki kër ndey mu ne na fa dem ndax xëy na ñooña daañ tane waa màkka ci moom ba mu demee ñooña far yées boole ba ba mu yëg ba ñu yëgee ne mi ngi dugg ci dëkk bi rek euh, ñu daal di fab nit ñu di ñeeg gone yeeg ñu sàggan ñëpp jal ko ci kawam ñu di ko doya dal ba xaañ ba ba ba sànni ko ba ba dagg eh, kii aw yaramam ba mu génn nag war a delluwaat makka ba mu génnee ba ca ba ca bitti ba mu toog ci genn garab di di di déyee rek boroomam di ko wan ne ko lii may daj metti na ma lool metti na lool ci man waaye man nag li ma metti dëgg-dëgg rek mooy sama diggante yow naqar yi su fekkee méréwoo ma rek yow yàlla su fekkee méréwoo ma te itam juyewoo ma ak yow lu ma mën di dal rek attan naa ko mën naa ko dékku ngir yow foofu nag la yàlla yabale eh, Seydina Jibril malaak mu ne ko la yabale malaaka malaaka yor doj yi ñu ne ko bu la soobee boo joxee ndigal ñaari doj yi war dëkk bi mën nañ ko këpp ci kaw waa dëkk bi ñoom ñëpp ñu al mu ne leen déedéet baal naa leen yow yàlla baal leen maanaam bu leen alak ndax naam dañoo xamul rek li ma tax a jóg ak li ma leen bëggal mu daal di dellusiwaat màkka ba mu delloo màkka nag ba muy jub màkka ñëpp taxaw ngir bëgg koo sàkkal ba mujj am ku mu ñaan kooko fat ko mu nekk nag ci jafe-jafe yooyu nag nga xam ne xat na lool daal ci kaw suuf xat na lool ci kaw suuf ndax ñaari dëkk yi nga xam ne fii la bàyyi waajuram mu góor dëkk fii waajuram bu jigéen fu ci nekk xatal nañ ko ba mënatu faa ne kon xat na ci kaw suuf boroomam nag bëgg koo dëg bëgg koo dëfal bëgg koo dëgëral xamal ko ne ko bu fekkee xat nga ci kaw suuf asamaan moom yaatal nañ la fi borom asamaan yaatal na la ci asamaan moom moom suuf moom asamaan bu ñu laxatalee ci kaw suuf moom yaatal na la ci asamaan daal di koy woo nag mu rañaan jóge Makka dem baytul maqdis jóge fa dem yéeg ci kaw muy xeexu bu mag boo xam ne ay njàng bind yu baree baree bari mi ngi ci biir bu njëkk bi mooy koo xam ne nga ànd ak yàlla bu waa suuf gépp àndoon suuxlu la bëgg laa xeex itam yàlla mi la moom moom du la te te nga nekkal ko du la du la seetaan mm-hmm. moo tax bañ ko xatalee ci kaw suuf mu woo ko ci asamaan woo ko ci asamaan dana ci xame ne moom dëgg gii mu nekk te wéet ci ndax ñi mu ci nekkal bariwut dëgg googu buñ ko wanee lañ ko doon wax te gisu ko lañ ko doon wax tam gëmoon ko gëmoon na yàlla ko am la moo ko tax di sonn gëmoon na asamaan gëm aljana gën gëm sawara gëm yi mu gisut gëm yonent ya ko fi jiitu woon yëpp gëmoon na ko gëm gu wóor waaye tegu ci woon bët yàlla nag bëgg koo wan yooyu yëpp waaw bëgg koo wan kiimaan ay kiimaan ya ca kaw ba mu gën a xam kàttanug yàlla gën a xam dëggug li muy woote ba ab aw aw fitam gën a dëgër ab xolam gën a dëgër ba dootul naqar wi nga xam ne ak njàqar li mu amoon ci kaw suuf mën a deñ loolu moo tax ñu yóbbu ko bay foofu ci nekk euh, ka beneen yeneen jàkk ji ñuy wax almasjidul aqsa mooy jàkk ji nga xam ne moom Seydina Baytul Maqdis bokk mooy Jérusalem mooy fi nga xam ne euh, yonent yàlla euh, Suleymaan moo ko tabaxoon moom it muy néegub yàlla bu barkeel yonent bi ñu yóbbu ko foofa ba mu jógee màkk foofu la wàcc ba mu wàccee yàlla dogal nañ ma yonent yi ko jiitu woon te ñu nekk ca sax seeni ruu na ci asamaan yi xam ngeen ne barsax mooy barsax mooy fi nit ku faatu di nekk baba àddina it tukki ba yomal xam barsax boobu nit ku nekk ak barsaxam maanaam ku gën a kawe yaay gën a kawe foo ne ci kaw ku gën a bon gën a yées yaay gën a suufe fooy nekk ci kaw ci ci ci ci ci jaww ji yonent yi kon ñoom ñoo ci ñoo ñoo bokk ñoo ñi gën a màgg ci yàlla bind ci asa ci ay doomu aadama kon ñoom ci seen bar sax ci asamaan yàlla am ñoo xam ne ñu nekk ci asamaan su njëkk si ñu nekk ci ñaar bi ñu nekk ci ñetteel bi ñu ci ñeenteel ba ci juróom-ñaareel ba ni seen daraja ëppante noonu la seeni ruu noonu lañ gën a kawantee ci bar sax seeni ruu kon ña nga foofee àdduna yàlla nag ci kàttan delloo leen ñoom ñëpp ñu wàcc ñoom ñooñee seen ñëw fii ci kaw suuf gàttandu si yonent bi foofu ci barab bi tase faak moom mu jiite leen julli loolu sëriñ bi wax ne la anta imaamu rusli qad jaa annahum talaaqawka fil isra'i wal kullu qad salla giñ naa ne yaay njiitul yonent yépp dikk na ci ay xabaar ay xadis ñu ne ñoom ñëpp tase nañu ak yow bi nga bi nga rañaanee tase nañu ak yow nga jiite leen julli ñoom ñëpp ñu féetale gannaaw kon foofu gisee na fekk yonent ya ko jiitu woon mu xam ne kon lii mu nekk ñii ñoo ko ci jiitu woon te amoon nañ jom ak fit ak ngor ba defoon seen liggéey ba wàcc wàccub liggéey moo ci toll kon gis leen dana ko fàttali dana ko soññ mu jiite leen foofee julli ñoom ñu daal delluwaat xam nga ruu dafa gaaw ñu delluwaat ku nekk fa sa barab fa nga nekk yonent bi moom ànd ak Seydina Jibril ñu yéeg ci alburaax wax nañu ne am na yéegukaay yéegukaay mirqaat yéegukaay boo xam ne ca la fas yi doon jaar ba mu yéeg xam ne ñu ngi ko teg foofu ci bay baytul maqdis mu dem ba ca asamaan mu jaar ci ñu bokk war fas wi eh, jaar ci jaww ji di gisi kiimaan Seydina Muhammad di laaj Seydina Jibril lii muy gis lu mu doon mu di ko ko firil am na ci ay mbir yoo xam ne ay nit ñu nekkee woon ak càggante fii ci àdduna lañ bañ nekk ca barsax ñu leen fay fitnaal mu mu gis leen eh, mu leen muy laaj ñu koy leeral bañ àgg ci asamaan su njëkk si ñu fëgg ñu ubbil leen bañ laajee Seydina Jibril na moom la ak ànd ak euh, Seydina Muhammad ñu ne ah kon Muhammad yónni nañ ko waa asamaan xamoon nañ ne ab yonent la bu yàlla lay yónni ci mujjug jamono mooy moo gën ci yonent yëpp ab xabaaram jotoon nañ ko lu jiitu ba ba loolu amee ñu yëg ne kon ah, kon ndeke ñëw na jamono kon ndeke yónni nañ ko loolu di xabaaru mbégte ci ñoom yàlla ubbil ko asamaan su njëkk mu fekk fa Seydina Adam mu wax ak moom nuyoo kooko dalal ko mu yéegaat ci asamaanu ñaareel di ko def ba ci juróom-ñaareel bi asamaan nga xam ne fa la fekk Seydina Ibrahim xalilullah alayhi salaam ci juróom-benneel ba la fekk Seydina Moussa ci diggante bi la fekk yeneen yonent yu bari ba mu demee ci juróom-ñaareel ba ba fekk fa Seydina Ibrahim fekk ko mu wéeru ci jàkka ji ñeex al baytul maamour Euh, mu daal di nuyoo moom saafaanteeg moom ab sëtam la mu doog a jàll nag ba sidratul muntaha ak garab la gu ñuy wax déemuk yamukaay dafa mel ni déem malaaka yu dul jeex ñoo fa nekk sidna jibril nee nañ foofu la foofu lay yem ci bu yéeg ci kawe foofu lay yem mm-hmm. bu yàggee foofa nag mu ne ko man fii laa mën a yem sidna muhammad yàlla yéegal ko ci kàttanam ba mu yegg fu kawe lool foo xam ni moom rek fa yegg ci kawe mm-hmm. foofee nag la yàlla waxeek ak moom déeyaale wax ak moom wax joo xam ne amul ku dox ci diggante bi te bu jëkk bu daa wax ak moom ndaw lay yebal muy Seydina Jibril mu wàcc ci kaw suuf jox ko xabaar bi jóge ci suñu borom muy wax bi bii yoon nag Seydina Jibril moomu sax moom dem na ba féere ko kaw yàlla wax ak moom loo xam ne Seydina Jibril fekkewu ko mhm. jox ko fa ci lim koy lig ci lim koy jottali loo loo xam ne ba mu ko ko jox Seydina Jibril fekkiwu ko loolu mooy julli yi juróom mu jox ko fa kon julli yi juróom ci ci ci ci ñu weete ñoom ñaar yàlla ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, mu jox ko juróom juróom julli juróom mu juróom fukki julli euh, yoo xam ne ñu war a julli ci bis bu nekk ba mu wàññi ko bay dellu mu romb Seydina Moussa ci juróom benneelu asamaan mu laaj ko loo jëlee ca sa boroom mu xamal ko ne ko jox na ma juróom fukki julli mu ne ko dellul nga ñaan ko mu wàññeel la ko xam naa ne sa xeetoo boo leen ko digalee duñ ko àttan ndax nattu naa ba banu Israël ci yu noonu te attanuñ ko woon Seydina Muhammad dellu suñu borom wàññil ko ci juróom mu del siwaat yonent Yàlla Musaa waxaat ko lu mel na mu ko waxoon muy baagante di dellu ñu koy wàññil ba mu des juróom mu ne ko dellul ñu wàññeel la juróom yi <laughs> mu ne ko nag rus na ma dellu daal di daal di wàcc juróom ya ba mu wàcce ñu ñu ñu mu dégg kàddu gu koy wax ne ko juróom yooyu de képp koo xam ne euh, taxawee nga ko danga am yoolub ku def juróom fukk yi ndax xam nga ne ku de ku jëf benn jëf bu baax bu yàlla nangu dana ko ca fay fukk mm-hmm. kon buñ ci fay bu ne fukk juróom fukk lay doon waaw ñu jox ko fa kon juróomi julli kon ci guddi gii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon guddi ñaar fukk juróom-ñaar ci la rañaane maanaam ci la jógee màkk dem xuts jóge fa yéeg dem ca ba àgg ci boroomam loolu mooy rañaan mi ak yéeg gi ci guddi gi la am xew bu rëy boobu ci guddi googu itam ci la ñu ko jox julli juróom ci guddi googu itam wër nañoo moom ci asamaan yi mu gis malaaka yi gën a mag gisoon na jibril moom waaye benn yoon la mas a gis jibril ci kaw suuf ci ni ko yàlla bindee mooy ca xaaru xiraa bi alxuraan di njëkk a wàcc ci moom boobu bi si dina jibril ñëw daa ñëw yor melawoo ko yàlla binde nga xam bi ko Seydina Muhammad gisee dafa lool sax waaye Jibril la ñëw ba moom wax ak moom gisaatu ko nag ci melow yi ko yàlla binde bu koy ñëwalaat day yor jëmmi nit ku rafet ku miin waaye keroog guddi gi googee ba mu demee ci Sidrul Muntaha ba ak Jibril àgg fa mu dëkk moom këram daa daal di mel na mbaa na meloon <laughs> Seydina Muhammad gisaat ko foofee kon gis na foofee Jibril mel ci ni ko yàlla binde loolu la ñuy jàng ci sootu euh, sootu nañu euh, di wax ne euh, wala qad ra'ayhu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa ma dalla saahibukum ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawaa wa huwa bil ufqil a'la summa danaa fatadallaa fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa fa awhaa ilaa abdihi maa awhaa loolu mooy gis gu njëkk gi gisu ñaar gi nag mooy gam ko gisaat ca Sidratul Muntaha kon gis gam gis Seydina Jibril ca na ko yàlla bind ci xew-xew yi la bokk mm-hmm. gis na Seydina Mikaayil euh, gis Israfil mi wal bi gis euh, Azraïl mi jël roo yi doomu aadama yi gis Malik mu yor sawara gis Ridwan mu yor aljanna ñu wan ko ajana ak ak sawaraak yëpp ba mu xam ne mbooleem li ñu ko doon wax lépp mu doon mu doon ko yëgal nit ñi mhm. di xabaar yu ñu ko duñ ko doon jox mu di ko jël noonu gëm ko te di ko jotliwaat ci gëm léegi nag ci bëtam ci guddi googu mu nga xam ne kon li suñu borom waxoon ne la eh, li nuriyahu min ayatina ji mu waxoon mhm. nee na li mu koy rañaane da ko bëgg wan ay kiimaanam mhm. waaw kon wan na ko fa ci ay kiimaan lu doy waar mu dellusiwaat nag eh, ci guddi gi li yéeme nag mooy bi mu jógee ci këram dem ba fële eh, dëkk bi Quds yéege fa ba àgg fa gën a koy wax ak borom ba dellu si xew-xew boobu yëpp lépp xew na ci biir guddi gi mu dellu si ci guddi gi te fi mu tëddoon tàngooru fa mu tëddoon tàngooroo dañagut loolu dañ ci jàngee ne malakut mulk ak malakut dañoo bokkut ay àtte maanaam ni xew-xew yi amee ca malakoot daa bokkut ak ni muy xewe ci mulk waaw ca malakoot xew-xew yi dafay gaaw lool lool lool ndax foofu ay ruuxa fa nekk te ruu ay yëngutoom dafa gaaw lépp lu aju ci malakoot dafa gaaw gis nga malaaka ni mu gaawee euh, loolu kon tuxu gi mu tuxoo ci dunduk kaw suuf nekk ci dunduk waa asamaan loolu moo tax mu mën faa def lu bare def loo xam ne ci diir bu yàgg yàgg yàgg lañ ko mën lañ ko war a def moom mu def ko fa ci diir bu gàtt dellusiwaat fekk jamono yi dox fii ci kaw suuf yeex ci lool waaw loolu kon day wane kàttanug sunu boroom di wane ne lépp ñun ci suñ bopp li ñuy dund ñun ñoo koy dund rek waaye lu bari ci mbir yi ni koy gisee wu mi bokkut ak nam demee dëgg-dëgg fa fa keneen moo tax nit war di gëm war di gëm bañ di àtte rek mbir yi ci li mu koy ci li mu xam nii rek ak li muy gis foofu dañ ciy déggee kon kàttanug sunu boroom des ci déggee it ne nit ku kuy dund bu ko yàlla mayee mën naa gisante ku fi nekkut yonent bi sallallahu alayhi ci biir guddi googu dajana ceeg malaaka yi euh, ki dajana ceeg euh, yonent yi nga xam ñoo ko jiitu woon jiite leen julli wax ak ñoom am na riwaayat yi waxaat na it ba mu yegee ci asamaan jiitewaat na leen foofa euh, foofa julli kon bu nit ne gis na yonent bi sallallahu alayhi mbaa mun a gis na ku fi bàyyi ko bu yàgg yàgg loolu diine du ko dàq xel du ko dàq lu mën a nekk la lu mën a nekk la nit kuy dund fii ci àdduna di jokkoo koo xam ne ma nga barsax loolu mën naa nekk ndax yow yaay am jafe-jafe ci jokkoo ki fi nekkul waaye kooka moom amul jafe-jafe ci jokkook yow mm-hmm. nit ku faatu ne ci bàmmeel boo fa demee yow boo boo koy jub mu ngi lay seen boo àggee booy wax mi ngi lay dégg yow nag yaa ko mënta dégg yaa ko mënta gis kon yow yaa am gàllankoor bu la ko yàlla teggilee nag nga daal di man a jokkoo mm-hmm. yëpp ay bind la jàng ci biir rañaan mi ak yéeg gi ak yeneen i bind nag yu bare bari yu dul jeex yonent bi nag ñibbisi ci guddi gi eh, ba asamaan setee nag mbir xew ndax xabaar boobu daa rëy yàlla ma yónni rek ci biir nit daa am ñoo xam mënuñu ko woon a wax gi ma wax ne yàlla ko yónni rek am na ñooñ moom looloo ko moo bëggoon a tukkal àdduna seen diggante ak moom lu nañu di ko def kon nag bu leen nee nag dem naa ca yàlla del siwaat baa mu ne leen jóge naa fii ci guddi gi dem xut euh, del siwaat loolu xabaar boobu nu mu koy waxee yéeme na mu xëy ci suba gi toog ci ëttu kaaba gi Abu Jahal ñëw xëy si fekk ko fa mu toog mu ree ko ne ko waa ah, saa waay tey nag nuy say xabaar nag tey loo indi tey ginnaaw yow bis nga wax dara <laughs> loo wax tey nag mu ne ko biig jóge naa fii dem Quds jóge naa Makka dem baytu baytul des mu wee gëmu ko daldi ne ah waaw baax na na su Seydina Abubakar daal di dugg si mu yàkkamti mu ñëw mu ne ko nag kaay yow sa waa ji nga xam ne lu ma soxla nga gëm ko kaay tey nag kaay déglu li mu wax nee naay biig jóge na fi dem baytul maqdis dellusiwaat na te ñun buñ jógee fii di fa dem dañuy am weer ci yoon door a àgg bu ñu ñibbisi danañ am weer door ñëw mu ñaari weer ci yoon yi moom mu ne dem na fa biig ci guddi gi dellusiwaat Seydina Abubakar daal di ñëw laaj wax ak yonent bi nuyoo ak moom ne ko yaa wax loolu mu ne ko waaw mu ne ko gëm naa ko de ndax damay toog maag yow ci benn jataay doo jóg du ma gis nga jóg ñu toog ñu ñaar nga jox ma xabaar bu jógee asamaan te du ma gis nga jóge fi nga toog ma di ko gëm kon nag su ma mënee soo mënee toog fii di ma jox xabaar ci asamaan ma di ko gëm soo mënee dem naa dama koy gëm mm-hmm. euh, daal di ko ne wax ma baytul maqdis nu mel jàkka ja nu mel yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam dem na fa waaye mbir ma daa gaaw a gaaw ba seetantal ton barab bi xamut nu mel sëñ Abubakar nekkoon nag wax ma nu mel yéefari màkk yi mag yi yéefar yi ñu ngi taxaw mm-hmm. nee na nag mu tiit nag moom yonent bi saa tiit na lool foofu mm-hmm. ndax laaj nañ ko lool bu ko waxut bu ko tontuwul te ne yàllaa ko yónni mën nañ ko sikki mën na sikki sikki mën naa am dara mbir mën naa xew suñu boroom nag ci kàttanam mag baaxam tegal ko indil ko eh, jëmm jëmmi barab ba mu mu jàkkaarloo moom nii. macha di xool di wax bunta ngi barab sàngam dara a ngi barab sàngam lu mu wax la si Abdou ne ko dëgg la de moom dem na fa. lu mu wax mu ne ko dëgg la de ba yàgg ci ne bi bi may ñëw sax maa ngi romb seen jégg bi demoon jëndi machine romb naa ci yoon wi ñuy ñëw ña nga toll barab sàngam am na ci seen kii ba boo eh, xam ne am na lu ko lu ko laal. léegi nag loolu muy xabaar bu njëkk bi muy muy rañaan mi ginnaaw bi nag Seydina Abubakar daal koy gëm ginnaaw bi nag la door a jotliwaat xabaaru waa yéeg gi muy nag xew-xew bu rëy rëy ci lislaam boo xam ne am na jullit yu bari bañ déggee xabaar dañoo daal di weddi ñoom ñi nga xam seenu gëm dëgërut dañoo daal di weddi ndax nit bu gëmam dëgërut bu xew-xew bu mag amee rek moom day daal di day daal di weddi moo am na ñu bari ñoo xam ne dañoo mujj weddi bi bi leen yonent bi ne nag rañaan naa yéeg naa moom loolu moom mënuñu koo dégg moom dañoo daal weddi waaye ña seenu gëm dëgëroon dañoo gën a dëgër ngëm waaw loolu uh, mooy xew-xew boobu xewoon ci guddi googu nag di kon lu rëy rëy ci lislaam ak i tolluwaayam yonent bi nag dellu siwaat sallallahu alayhi wa gën a dëgëraat ba yàlla dimbale ko mu daldi gàddaay yàlla am digal ci gàddaay jóge màkka dem Yasriba ñu tudd Madina ginnaaw bi loote lislaam daal di dëgër kon lii day wane foo xam ne dañ ci fàttaliku fu fu lislaam tolloon ci jafe-jafe ñu dem ba loolu mel ni mësta am lislaam dëgër loolu yaatu fu am doole loolu ab jullit mën na cee xame ne xew-xew yu ndaw ndawaan yi xew ci lislaam noonu lislaam di ko amal du dara mhm. waaw ndax lislaam jaar na fu gën a tar gën a metti te yàlla mësta seetaan yonent bi sa mësta seetaan jullit yi kon day tax ñu gën a dëgëru gëm gën a lépp lu nit dajoon ci coono ci lislaam gën koo gën koo daj gën koo gën koo xeeb gën a góorlu mu dajeeg nag yàlla def rajab mi ni mu nekke weeru jullit yëpp mu nekkee noonu weeru sëriñ bi nekkee noonu weeru kenn ci njabootam gi gën a ràññiku mu Cheikh Mouhamadou ndax ci weeru rajab wii ci la sëriñ bi sanc Touba benn fanu rajab ci la sëriñ bi sanc Touba ci rajab bii taalif na ci ay xasida yu bari bokk na ca bushra lana xat ataanaal joodu wal karamu la mastahallat alayna al ashhurul xurumu xusna mataaban ma al xufaani fii rajabin wa tajee fil bawaaqi raw daman xurimu mu ne am nañ mbég mu rëy ndax weer yi ñu wormaal teru na bi ci jëkk teru na bi ci jiitu bi ci jiitu ci sax waaye wenn ci ñoom rek ndax ma ci jiitu rajab kon teru na mu ne mbégte la mu rëy rëy rëy te ci rajab jii suñu boroom may na ma ci tuub gu sell tuub naa ci tub gu sell gu suñu borom nangu am naa ci it njëggal gu suñu borom parce ma taama alxuraan fii rajabin maa ngi yaakaar it ci yeneen weer yi ci des yàlla tàggatal ma ci noonam yi nga xam ne xañ na leen yërmandeem kon loolu fo bu saagoo la naa jooju xasila la guy firndeel waayu weer wi ci sëriñ bi ci weer wi di rajab ci la sëñ bi tàmbalee waajale weeru koor lillaahi xat tubtu fi chambaana an rajabin euh, mu jaddidan fii ka fashhad lii bi tarki dadi weeru koor lay waxal nee naa nee na ko ci baraxlu wi ma nekk ci baraxlu wa euh, ca ca rajab laa tuuboon ngir di la waajal bi Sàmbaan ñëwee baraxlu ma ma gën a fetli sama tuub bi nga ñëwee nag ma yeesalaat tuub gi nag fas yéene laxasaayu nag euh, da jox la sàq yu weeru koor kon ci weeru rajo bi li sëñ bi daan tàmbalee waajale weeru koor ci weeru rajo bi ci la ko yàlla baaxe Cheikh Mouhamed Fadil mi nga xam ne taxaw na ci lislaam ji taxaw na yonent bi rañaan ak julli yëkkati kawel mbirum julli mi tax mi nga xam ne bokk na ci li gën a fi fés ci li xew ci guddi rañaan mi mu def ci jëf joo xam ne ju ràññi ko laat euh, kon Cheikh Mouhamadou Fadil ak Rajab ak tuuba ak julli ay ay mbir lañ yoo xam ne duñu duñu teqalikoo mm-hmm. Rajab la gane àdduna euh, Touba ci at mi sañ Touba ci la ko ci Rajab bi at moomee la jullit jumaa ji nga xam ne mooy mébétum sëñ Tuubaa mu mag ma te yàlla yeggale ko ci loxoom ci mbirum julli aju mu njëkk a jiite jullit jumaa ci yoonu murit euh, ci ci ci Tuubaa bokk du ci yoonu murit ndax jumaa yi njaareem ubbi nañ ko ci ndigal Cheikh Moussa kon julli jumaa lu jiitu ñu ubbi jumaa yi Tuubaa waaye mu njëkk jiite daal julli Tuubaa julli jumaa ci Tuubaa bokk jiite ko nag ay ati at kon loolu di ay xew-xew yoo xam ne lëkkaloo nag ñëw gi jamono ci guddi googu am na lu mu jote am na lu koy luy wane ne lii kat war naa mën a am ndax kii def lii am na euh, lu mu war a taxawee ci ab liggéey lu aju ci xew-xewi guddi gii euh, ci guddi ci bis boobu ñaar fukk ak juróom-ñaar muy bëccëgub rajab bëccëgub kazu rajab xam nga Cheikh mu Fadel mi ngi ñëw jamono ci guddik ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru rajab dëppoog juróom fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars 19 mars 1889 euh, loolu ku ci mooy taarix bi njàpp ne moom ci la Cheikh Amadou Fadel ñëw jamono euh, loolu di xew-xew boo xam ne kon bu bu bu bu bu màgg la ci bëccëgu bis boobee nag foofu loolu laay jeexale sëriñ bi bind na ci kon ci weeru rajo bii ci la sëriñ bi tàmbalee taalife ma faatewul bishri wala wal janna fi salaat ci weeru rajo bii la ko tàmbalee mën naa am jeexul ci weer bi ndax Chaban ma ngi ko ma ko cay tudd ak yeneen kon man naa waaye jëm bi tàmbali taalif moom ci weeru rajab bii na yum dafit ci yow mu rajabin yow tënk yow mu rajabin ci biir xasida gi moo yaa fadilan faddalahu alxalaaqu yaa man bihi faaraqani imlaaqu waajahtukal yowma walil razaqu kaana bi ma tanmu bihi al jaa arrida maxawta anni ma bihi nifaaqu annim maxa wa jaa radattali ma zaanahu lifaaqu bi man bi bihi stanaati l afaaqu jaa arrida walfawzu wal intaaqu bika kama bika anta intaaqu bika xtawaynaa maa lahu nashaaqu salla alayka alakamul xalaaqu bayit yooyu mooy tolloog yawmu rajabin yawmu rajabin bu ñu ko waxee mooy kasu rajab mooy bis bi ci gën a bi ci gën a ràññeeku ci ngëneel kon jàpp nañu ne bayit yi ci bis boobu la bind kon man nañu jàpp ne ci bis bi Cheikh Mouhamadou Fadel gane àdduna ci bis boobu la bind bayit yii euh, loolu dégg naa ko ci sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdourahmane Lo euh, rahimahullah wa radiya an walidihi mu ne bi sëriñ bi bind ma bi si ba tollu ci yaa fadilan baag si bay di jiitu yaa fadilan ci lañ ko wax xabaaru ñëw jamono Cheikh Mouhamadou Fadel mu daal cay teg euh, yaa fadilan mm-hmm. bayit yi nag yeneent bi sallallahu la ci sëriñ bii di waxal yonent bi nga xam ne bokk na ci ay turam wala ay meloom mu nekk mooy faadil faadil mooy aji gën ku gën koo xam ne daa gën ñu mbokk ñu am ngëneel ñoo xam am nañ ngëneel kooku gën leen mu ne yow aji gën ji nga xam ne yàlla mi mën a bind lool ak mën a bindam foo ko takk wees na ko xalaaq loolu day wane ne kon ki mu gënal jëfe na ci coobareem daal yow aji gan yi nga xam ne bind ki ki dàq bindkat bi yéeme lool ci mën a bind moo moo la gënal yow mi yow mi nga xam ne ci yow laa teqali kooku ñàkk ci sa barke ci sa barke laa laa teqali kooku ñàkk yonent bi lay wax euh, tey jii maa ngi jàkkaarloo yow euh, te yàlla mi wane joxe wërsëg euh, nekkal na ma may na ma luy tax sama wërsëg di yokk saa su ne luy yokk wërsëg saa su ne loolu barke lañ ko mën a jàppe xëy na barke moom ku ko am fu mu toll wërsëgam day yokk kon mooy maa ngi tey yi yaakaar bi di wax ak yow waaye may nga ma sa suñu may na ma ci sa barke luy tax fu ma toll sama wërsëg di yokku lépp luy xeetu naa fekk yàlla ko far na ko ci sama xol ba mu far ca ba mel ni du ci mës ta nekk mësu caa nekk sax nag te sama sama mbir dox na lool daal bu jaani nafaaq mooy njaay mu jaar waaw sama mbir dox na daal doxle naa daal su ne lépp daal baax na <laughs> eh, daal ko wax ne ko eh, yàlla delloo nga ma lii nag moom man xamul muy firi mënu ma ko dégg xaw ma ko daal radatali maasanaxul yi fàqu waaw maanaam faax loo xam ne delloo nga ma ko loolu mooy lan delloo nga ma li nga xam ne euh, ak dëppoo moo ko rafetal loolu wax ji mu lëm la mhm. xëy na moo ko xam mhm. ne ci diggante bi ci diggante bi euh, ci daraja yi ki nga xam ne euh, ci moom la gox yi leere kooku mu bi sallallahu alayhi mhm. mu ne ko nag ngërëmul yàlla ak texe ak gore lépp te am naa ko tey jii mm-hmm. euh, euh, ci sa barke ci sa barke yow yant bi sa daraja mm-hmm. ci sa daraja it ame ame naa ci ay gor yu kawe kon boog ci yow laa ame la ma bëggoon a am lépp la ma bëggoon ci sama xol mu yitteel ma lool ma bëggoon ko am bi nga xam ne maa defoon na mm-hmm. loola tey jii am naa ko tey jii kon nag yàlla na la yàlla dool lay teral dool lay yëkkati dool lay barke ak i xéewal yow mii nga xam ne mooy yore tagg bayit yi nag eh, dafa ràññiku ci biir xasida gi nga xam ne moom boo xoolee bayit yëpp bokk ay daane kii rawiyu bi araf yi bayit yi daanoo ñoo bokk ñoom ñëpp xaaf la te loolu benn yooyu ñoo mel noonu ci yëpp yi ci ya ko jiitu melu ni yi ci topp melu ni kon lu ñu ra lu ñu màndargaal la wane na ne kon am na lu muy lu muy junj hmm. li ñu seetlu nag mooy bayit yi de yonte bi sallallahu alayhi ci sëriñ bi de waxal waaye melokaan yi mu ko ci wax yàlla yi mu ci yi mu ko ci wax yàlla rafaatal na feeñal na ko ci Cheikh Mamadou Fadel yàlla feeñal na ko ci Cheikh Mamadou kon loolu waxuñu ne Cheikh Mamadou Fadel moom la moom la ñuy wax ñu ci bay di yonent bi wax waaye barke maanaam maanaam mi ci bay di daal turandoo Cheikh Mamadou Fadel moom rafet rafaatal na ko ci as lu am solo solo kon guddal naa lool sax ci loo xam ne lu ñuy wax li Serigne Saliou radiyallahu daan wax na lu ñëpp xam loo ci wax mu doy li ñëpp xam nañ ko kon liñ ci wax tuuti rek doyoon na waaye ñu ngi tëkk fii kàddu gi di ndokkeel di doolee ndokkeelu Cheikh Abou Baraka yow sax moom faat gépp di ko ca jaare di ndokkeel Cheikh Mountakha ak mboolem nag kilifa diine yëpp ak lislaam bépp weer wi di ñaan ñu dugg ci ci bismillahi rahmaan génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te li ci nekk ci ay ngëneel ki yiw ki barke lépp ñu màng ko euh, ci barke bi yonent bi saras bi ci rañaan waaye ci barket eh, Cheikh Mouhamadou mi nga xam ne feeñ na ci ak njabootu Sëriñ Tuubaa gépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa barakaatu maa ngi siyaare kilifa yëpp di leen ndokkeel di wax ne kàddu gi yàpp naa ne mënoon naa ñàkk ndax tomb bi ñu doon waxtaane li ci am njëriñ lépp sëriñ Afia tënk na ko ci bu leer dana ko yàlla sàmm te dëgëral ko joxe na bind bu am solo boo xam ne ku ko teewlu te settantal ko mën nga cee jële lu bare bari waaye mën nga cee jariñu it njariñu bare bari naa ci jàpp rek loo xam ne junj na ko moo di ne sunu borom du daf dara ci neen yonent bi sallallahu alayhi wa cër bi ku yàlla cër am na lu ko jiitu muy natt yu metti yu diis dem ba say mbokk bala ñëpp bala foo jublu ñu du fi loolu metti fi la yam waaye mu gëm yàlla boobee mu taxaw jóge jógee Taïf di ñaan ne ko boo merewul rek lu mën a ñëw baax na loolu bokk na ci li ko may mu dem ba sunu boroom nag ne ko nattu naa la nga nga nga yanu nattu bi naa la tànn ba ñëpp xam ne tànn naa la waaye dégg naa ci it mu wane ne yonentu islaam kenn du moom fa fa àgg kenn mësu fa àgg sayyidina jibril alayhi salaam aminul yi waaye teewut yonent bi salaam ànd ak sagoom te xam na ni yonent yàlla Moussa ba sunu borom feeñoo doj wa dafa dafa rot xam kii nag àgg na fa dégg xalima yi di sab di bind dogal yi te teewut mu mu ne mu ne mu ne loolu bokk na ci liy saxal ak matam mat goo xam ne jéggi na dayoo loolu nag euh, jullit ñi ko yàlla baaxee kon war nañoo sant yàlla mm-hmm. xam ne li sunu borom wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas feeñ na ci lu ne kon loolu war nañ ko yëg di ko dund euh, waaye it ñu bàyyi ci xel ne ci guddi googu sëriñ Afe wax nga xam ne ci la sunu borom jël yonent bi ay salaam jëlee ko suuf bu ko kaw jëlee ko ci mulk yóbbu ko ci malakoon mën nañu wax ne ci la suuf ak asamaan njëkk daje ndaw dara ñëw di wàcc rek waaye kenn ci suuf dem ba àgg ci kaw ba àgg foo xam ne meneen mbindeef mus fa àgg loolu loola loola keroo la njëkk am muy xéewal gën a màgg ci xéewal yi waaye lam ëndaale it kon jar na bàyyi xel kon mel na ne wowoon na ko ngir teral ko wowoon na ko ngir euh, daral xelam ak defal ko waaye woo na ko ngir jox ko ndigal loo xam ne it moo gën a màgg ci ndigal yi muy ndigalul julli dañuy wax ne mboolem ndigal yëpp li ñu màgg-màgg ndaw a ñëw ne ko sa borom nee na julli nag bi ko yàlla jox da koo ba mu ñëw mu ne ko maane kenn du ko ci diggante bi muy jàmm yàlla gi gën a rëy ci kaw suuf ndax ginnaaw bu ñaari baati seer yi jàllee moo jiitu ci jaamu yàlla yi yowmal xiyaamat yonent bi islaam nee na li dox diggante jaam yi ak seen borom moom la ñuy njëkk laaj awwalu maa yuxaasabu alayhi al abdu yowmal xiyaamati as-salaa kon loolu day wane màggaayam moo tax ni sëñ mag boo xam ne radiyallaahu anhu dee leen julli te di ko rafetal ndax dana tax lu ngeen dëngal bu ëllëgee julli ga rafetal ko waaye moytu leen julli di ko ñaawal ndax dana waral lu ngeen rafetal boo léegi julli ko yàqu loolu mooy xadis boobu la leeral mm-hmm. saa julli baaxee lépp jag su julli jagu dara du jag loolu it bind bu ñu war a jàng ci li sëriñ doon leeral léegi ci la bokk mm-hmm. ndax suñu boroom ay jëfam li ñuy wax sut fa amu ci nangam lu tandu amul euh, weer yi ak bis yi ak waxtu yi ak bërëb yi yàlla jublu gënal leen mm-hmm. loolu coobaree ma rajab bokk na ci yim gënal ci coobareem yoo xam ne kenn du ko laaj lu tax waaye bokk na ci li mu waxoon ne mat bàyyi xel sëriñ Afe juñu na ko weer la woo ne bu dikkee jullit bi war naa yëg ne bokkut ak weer yu ko jiitu ndax yàlla yemalewu leen te it waxee ne fukki weer ak ñaar la ba yàlla bindee asmaanu suuf am na ci ñeenti weer yàlla wormaal da caa teg ne bu leen tooñ seen bopp ci weer yooyu kon nañu ne bu weer yu dikkee lu waaye doon def ci lu baax na ko yokk waaye lu waaye doon moytu ci safaan na ko gën a moytu maanaam def lu baax ci weer yi la gën a tonawu ci wutul moom waaye daf ci safaan yi moo gën a diis daf ko ci beneen benn weer fala tuzlimu fihinna anfusakum loolu it jàpp naa ne mat naa jàpp ci li sëriñ Afia doon leeral ci rajab ci ne bu dikkee nañ jullit di yëg ne lu baax lu ne koor ak yàlla ak julleeg saraxa yu baax yëpp ab traite la boo xam ne loo ci def lay tonaw ndax yàllaa ko tànn wax ne eh, yàlla da ko wormal eh, ba Euh, jël ngànnaay sax dañ ci doon tere lu jiitu li lislaam di ñëw sax war ma juj amoon na ko kenn daawu ci xeex sut amu ci it euh, rañaan xew ci di xew bu rëy ni mu ko waxee nga xam ne baado yooyu lañ am rek ci wax ko baat yi xew-xew bu rëy la waaye àgg ci ne màggaay day mel daanaka làmmiñ wërta mën a wax màggaay googu nit mbindeef jóge ci kaw suuf dem ba àgg foofu leer mu leer lu am solo ci ne bu ñuy natt lii xew ci mulk buñ ko natt ak lii xew malakul maanaam li ñuy dund ñun ak buñ génnee dund gi jëm ci geneen dund ga bokkuñ moo tax foofa euh, li ñuy tudde espace ak ak ak temps amu fa lépp yàlla mën na koy taxañ di ko def ci jenn jamono moo tax xew-xew yu bari bari mën a dajaloo xewandoo ci jenn jenn jamono te bu dee ci noonu fii mu muy rée ci noonu loolu it ku amul tawféex doo ko mën a doo ko mën a nangu nag moo tax bi yonent bi alayhi salaam wàccee it ñi am tawféex la ko gëm Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu bokk na ci ñooñu te turam boobu bokk na ci li ko may loolu Siddiq mm-hmm. ginnaaw yaa ko wax dëgg bu leeree ne du islam ko wax na dëgg ndax du wax lu wax lu wér loolu it ab jullit foofu lay nekk du ne mbir mu ne dama ci am dama ci am lu leer nañ door koo gëm ñun xeet la woo xam ne yu'minuuna bil xaybi la ñuy la ñuy la ñuy melale dañuy gëm xaybu saa bu ñu noppee nangu xaybu rek noppi nañu doon ñu ñu gëm lu ñu gisut loolu bokk na ci li ñuy xam ne ki ko wax dañuy doy ba lu mu wax rek ñu gëm ne wax na dëgg sunu xel mën na ca àgg mën na ca bañ a ndax xel dajut fépp jotiwut lépp loolu it mën naa bàyyi xel baax baax waaye jàng ci ne euh, sut fa amut ci fi suñu borom Cheikh Mamadou Fadel mi ci feeñ ci weer woowu feeñ ci guddik àjjuma loolu sunu borom lay it ginnaaw amut lu muy tàndu lu mu def moo ko jublu moo jublu mu feeñ ci bis boobu jublu mu feeñ ci waxtu woowu jublu mu feeñ barab bi mu feeñee lépp nag ni ko sëñ Afi waxee feeñ na ci dund sëñ Fall waaw li mu leeral nii wane ne du ñu wax ne bayit yi moom la sëñ bi doon wax waaye maanaam bayit yi yëbbu na sëriñ guddi gi àjjuma gi gane àdduna yóbbu na sëriñ fàllu ci ngëneel yi guddi gi am nga xam ne moo gën ci bis yëpp do salaam nee na sayyidul ayyaam bi mu yemul juma ci la yàlla bind aadama ci la ci lay tukkal àdduna euh, waaye daaru salaam bi ñu wax ne fa lay feeñee it li muy tekki ci yoonu murid ñu nañ ko tur wi rek li muy tekki li muy tekki rey na lool naa ko faral di wax daaru salaam salaam day firi yàlla tur la ci tur yàlla yi kon kër yàlla la di firi jàmm di firi àjjana di firi maanaam yu bare bare yu daje yoo xam ne lépp mën nañ koo dégg ci biir kon woo Cheikh Mamadou Fadl gane àdduna di guddi waaj ma di weer rajab bu tax bu yàlla néeg bu toll nii du xarib ñii ci tam du amul ci suñu borom loolu it am njàng la ci njaboot gi it nag ñu xam ne kon toog ak waru leen ndax ndono li rëyaay bi fokk takk weesu na ko kon sàmm ko bokk na ci li ñu gën a war ak ak ak dundalu ko te mel na ne kilifa yi nag jataay yi ñu am lépp loolu jublu nit ñi di ko jànge ñu toogee di fàttali nit ñi bëgg nañu fàttaliku te waaru ab jullit day fàttaliku di waaru démb ci la ñuy xamee eh, tey tey ci lañuy mën a sukkandiku defar ëllëg kon jàngal nañ li xewoon démb yàlla dogal ñu ñu ñu nekk fi kon war nañoo bàyyi xel ne taarix noonu la mel ñi fi newoon nekk fi lu rafet lu jag bañ fi jógee seen jëmma dem waaye seen jëf ak seen njariñ ak seen tur dafay des adduna jëpp noonu la ñu mel Cheikh Modou Fadil feeg denn baa ngi fi nekk aw turam dafa des aw yowam di dolli ko ndax lim fi bàyyee ci lu baax waxtu wu ne jullit ñi di ci teg bët di ci jariñ te loola ci alxaya barsaxe ak ci aljana lépp ay xewal lay doon loolu it bind la ci ñëpp joo xam ne euh, koo xam ne nii yaa ngi bàyyi xel lu mel noonu war ngaa xool sa bopp natt sa bopp ci loola foo ci toll foo toll ci roy mag ñu baax ñooñu nga xam ne seen benn bis neenu luñ ko ci àdduna yàlla dafa leen taw féex dafa leen aynaaya ci fiñ feeñeek ak niñ feeñe waaye nag seen yitte bopp it yóbbu na leen fa ñàkk kon loolu it roy waaye lañ ci waaye ñun it loolu bind boobu lañ ci war a jànge loolu daal laa doon mën a tënk ndax li ci am solo moom sëriñ Afe wax na ko ñu ñaan yàlla jërëñ ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu